محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخير خديمه ذوي الرضوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيوغي نيو نيب دي زيارة نيب دي نوك نيب تي ترو دائرة أحفاد الشيخ محمد الفاضل ci njiital Cheikh Abdoul Karim ah, Cheikh Ahmad Mbacke Karim ak Baye Dame Fall mi nga xam ne ñoom ñoo ne ci kanamu mbooloo mi ak mboolem seeni bokk yu góor ak yu jigéen yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom liggéey boobu yi ñuy wax ci turu seeni kilifa ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziyaar leen ndokel len ci weer wu tedd wi nga xamné ci lañu nek nekk di rajabul fard di len ndokel ci xew-xew bu mag bi nga xamné mom lañu la di kazu rajab mi ngi len ci ndokel bu baax tambulé ki Cheikh sayyid al mukhtar mi nga xam ne moo toogi cheikh al khadim jaare ko ci buntu kër gi ki ne ci ki ci abi buntu kër gi Cheikh Amadou Fadil di Cheikh Abul Baraka ñaanal leen bu baax sama borom yàggal leen ci suñu kanam te may leen wér nuyoo yooyu yëpp ñu di ci euh, sédd cër bu rëy di ko di ci jagleel itam suñu gan ñi nga xam ne ñoo fi teew bàyyi ko kër masamba yi di ko teg ci loxol sëriñ cheikh di ko ñaan mu jotalal ñu ko ca seex ma mustapha mi nga xam ne moo toogee jotaay Cheikh massa mbadi ñaan suñu borom yagal leen fi ñoom ñëpp te may leen wër dolli seen wër ak seen katan di am mbégte lool ak sharaf bu mag ci jël gi ma jël kaddu ci turu sama bokk yu bax yi ndax ma fi gëna ñak solo gën fe neew allo gatt allo waye ñuy doyloo ma am ci man yaakar ba tax ñu leena yëkëti kaddu sëdi goor yi ak yu jigéen dalal gan ñi tënk tuuti ci li tax daayira bi jóg ak it lenn ci yi nga xam ne daayira bi mi ngi koy taxawee ci wàllu ay activité ak yoo xam ne ñu ngi koy réaliser itam ak yu ñu naal kon ñu ngi leen di dalal bu baax ñi fi teew ñëpp délégation yi fi teew bind nañ leen sëñ Mouhamed mi nga xam ne mooy incha allah modéré jalsa bi dana ci ñëw ñi ci Euh, waxtu yi waxtu yu mayee ñu tudd leen dinañ leen tudd waaye ñu nañ yëg ne daal yëg nañu teewaayu ñëpp xol yi sedd na am nañu itam mbégte lool li nga xam ne moom la suñu boroom diggee ci bu ñu la wooyee sa bokk woola ci lu baax nga wuy si ngir yàlla la mu diggee ci yiw ci pay ci barke ci leer yàlla nañu ko yàlla defal ci bii mu ànd ak ñun ba faw ci barkeb Serigne Touba euh, ci tënk kon rek ginnaaw bu bi bi ñu rafetloo kàddu yi fi jàll yëpp tàmbalee ci waxtaanu Serigne Afia wi thème bu am solo ni mu ko indee loolu lépp matale lool ak suñu bokk yu baax yi nga xam ne ñoo ci dellusiwaat def ci ay contribution yu am solo di alxaaji Ndiaye sëñ alxaaji Ndiaye Cheikh Ndindi sëriñ Daara ak sëriñ suñu mbokk mu baax mi di sëriñ Abdul Xaadir Ba moom it loolu rafetlu nañ ko bu baax sant nañ leen bu baax ci turu Sëriñ Cheikh Amadou Fadal yi euh, daayira bi nag xam ngeen ne bi ñu ko taxawalee ak léegi mu ngi bëgg a am fukki at ak juróom benn jàpp fukki at ak juróom ñaar rawatina bi ñu tàmbalee amal jataay bii di conférence bii nga xam ne dañ koy def di ko waajale di ko laytaayale màggal bi bañ koy taxawal itam jubluwaay bi mën nañu wax ne ci ñaar rek la tënk bi ci njëkk te mooy sëriñ Afia junj na ko ci bi muy leeral jubluwaayu daayira nee na am na ci daay dawaayir yi yoo xam ne seen jubluwaay mooy dëgëral buumi mbokkoo ak cofeel yi nga xam ne moo dox ci diggante ñoo xam ne dañoo am lu ñu bokk te mënuñu ko séddoo rawatina nag ñu bokk sëriñ bi kon loolu mooy li jiitu ci objectif bi tax ñu taxawal daairatu ahfaad cheikh Mouhamed al fadl dañ ciy teg sax li taarufi wa taawuni ngir xamante te xamante bu amee dimbulante ak jëriñante ak jàppalante daal di am kon loolu mooy li ci jiitu waaye dimbulante gépp lépp itam day delluwaat rek ci lu baax ak ak ragal yàlla albir wa taqwa ñaareel ba mooy fas yéene xam ne ñun kat yàlla dañoo defal xéewal gu rëy xéewal gi mooy boole gum ñu booleeg ak Cheikhul Xadim jaarale ko ci Cheikh Mouhamadul Fadil muy loo xam ne sant ko ba ba ba def ko nam waree du yomb ñu ne kon nañ feeñal suñu yéene taxawal mbooloo moo xam ne day tënk sët yi sët Cheikh Mouhamadul Fadil yi waaye nag ñu fas yéene jóg nag ndax ndax cant gi du lu ñuy wax rek ci làmmiñ waaye ñu nañ jóg nag fas yéene jëfe cant goog yi firndeel ko ci tasaare lépp loo xam ne Cheikh Mouhamadul Fadal daf ko fee bàyyi muy ndono moo xam ndonol xam-xam culture te lépp di delluwaat ci ndono lu mag li bokk yi doon waxtaane léegi te mooy ndonol Cheikh al Xadim li nga xam ne génnut ñaari mbir muy ñaari baat al ilmu wa diin di ñaar yooyu nga xam ne keroog bañ ko gaaralee àddina ak li ci biiram daf ko wan ginnaaw dégmal ñaari yooyu wax ne ولسراد يا غير العلمي والديني خم خم بابو الديني بيجا خم نك مم لسرين تبا بايون نيكو في وطن نيبت دون كسام دون كسير شام دون فادر بكت يلا بول نيونك تيمم نيونك كندن جيمي تفجن سنيني تسامل كندن لولو تفخر بلب لو خم نه لين ورا خم لتيمم ورا خم تيون مريد تيوالو خم خم تيوالو جيكو تيوالو جسلان تبرفت نيدف لمل نونه لولا صح مولين يوبو تيني تحول كونفرانس سيدي سابو نيكو دفه jël kenn ci kàngami yoonu murit koo xam ne mat na royukaay sëkk ci mbaax ci yiw ci jikko ci lépp ñu tuddee ko bis bi conférence bi ngir jubluwuñ ci rek tuddee kese rek dëgg la am na maanaam honneur ngi ci ak ak ak teddal waaye nag li ci gën a jublu mooy won nit ñi jëmmi kooka mooy kan rawatina ndaw ñi xam ne am nañu ay royukaay yu mat sëkk yoo xam ne ñu ngi ñu jege lool ñu fexe jéem a roy ci ñooñe loola bokk na ci li nga xam ne moo taxoon euh, daayira daayira euh, ahfaad Cheikh Amadou Fadil yi taxaw mu ñaari mbir yooyu bu may may tënk nag activités yi ci gàttal rek tudd naa ci léegi benn bi nga muy jotaay bi nga xam ne ci yi ñu njëkk a ci la bokk muy lu am solo loo xam ne defe naa ne euh, damay bañ ñu ma xam waaye ñu bari ñu ñu ñu ñu ngi koy roy loolu itam aw yu aw yu rek la ndax roy roy roy lu baax it defe naa ne lu am solo la waaye ñu ñu amaat yeneen yoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci yëngu te lépp. jëm rek ci sàmm sàmm euh, sàmmal sëriñ bi sàmmal sëriñ Fallou ndonoom loolu la ca la la ca jiitu mooy daaraam ji nga xam ne moo nekk ci daarul naan ci këram bi ci daarul Manaan sëti Cheikh de Fadil yi la seen kilifa yu baax yi seen waajur yi jox ndigal ñu di ko superviser di taxawu daara ja toppatoo njàng ma ak mboolem lépp loo xam ne ay ixtiyaajaat la yoo xam ne. sëriñ daara ya wala dongee daara ya soxla nañu ko ñu fas yéene loola ñu ñu ñu ciy taxaw ba seenu nekkin man a rafet la yaakaar naa ne kuy kuy taxaw daari alquran loolu yaakaar naa dina bokk ci solution yi nga xam ne bokk yu baax yi danañ ko jéem a gaaral ci yenn ci nu ñuy mën a saafara dëkk yi nga xam ne dëkk na yoonu murit rawatina ci jamono ji ñuy dund mu jëm ci wàllu alquran bi nga xam ne lu sëriñ bi fonkoon la te yaakaar naa ci li mu gënoon a fonk sax mooy alquranul karim kon loolu bokk na ci ñaareel ba itam mooy ñu ngi am naal bu mag boo xam ne day jox ko ci liggéey bu rëy boobu liggéey alxuraan boobu ak xam-xam sedi naal naal bu rëy fii ci dëkkub Cheikh Amadou Fadil bii di Ndindi nga xam ne bi mu koy sanc ci ndigalal Serigne Touba moo moo Cheikh Moustapha ak Cheikh Massamba ak seen bokki baax yi ñu boole woon sëñ moo roqee ñoom ak sëñ Massamba euh, Kanni jubluwaay ba moo doon sëñ bi di leen waxoon na ngeen wut dand sama dëkk ba lu tolloog xëy na juróomi kilomètre ci waxin di fa liggéey di fa jàng di fa jàngale di fa di fa di fa yere di fa sàkk lu lew saa bu sama jumaa ji ci tubaa noppee ngeen dem fa di fa di di di fa maanaam jaamu yàlla kon ndindi googee itam ngir àggale liggéey yéene Cheikh Amadou Fadul jooje ko Serigne tubaa bàyyee woon jëm ko joxe ñoon moo tax sët yi ñoom itam ba tey ci ndigalal seen kilifa naal fa naal bu rëy boo xam ne complexe boobu mag boo xam ne bu noppee. daari alxuraan moo ciy jiitu daaray xam-xam waaye lépp loo xam ne itam yar lay doon bu jëm ci diine muy góor muy jigéen génération yi incha allahu taala dañ ci taxaw kon ci tënk rek yooyu ay yenn la ci jëfi jëfi jëfi daayira bi ci yi nga xam ne mi ngi koy taxawee ak yi nga xam ne am na yéene taxawee ko bu dee ci wàllu social ak ci wàllu humanité yi itam humanisme gis nañu taxawaay yu am solo yoo xam ne daayira bi mi ngi koy def ndax fexe nañ ba ñu ngi góorgóorlu tàmbul nañ ko daaw jéeg te incha allah dañoo bëgg ñaari at yu nekk ñu def lu mel noonu mooy organiser ay journée de consultation gratuite yoo xam ne dañuy seet nit ñi ubbi leen bunt yi woo ay docteurs yu qualifié yu xam la ñu war a xam ak nekk ñu ñu ñu yéene seen xam-xam doomu aadama yi ñu jël leen la lépp ñu def ko nit ñi ñëw ñu seet leen jàngoro yi ñu am ñu xam ko faj leen te du ñam rek ci seet leen rek te doo fay dara bi ñu ko defee ba pare dafa am suivi fexe nañ ba ñi nga xam ne gis nañu ne am nañu ay jàngoro yoo xam ne jar na opéré yu bët. yu yu biir yu yu man a doon yu bëñ ñu fexe ba ñooñu ñu yóbbu leen fañ leen war a opéré ba am na ci ñoo xam ne defe naa ne ci lañ jaare ba yàlla defal leen si faaw loolu kon bokk na ci li nga xam ne ñu ngi koy taxawee mu jëm ci wàllu social jëm ci wàllu euh, liggéeyal xidma xidma liggéeyal yàlla ci jaam ñi defe naa ne tënk daal loolu yenn la ci gis nga bu dee ci ren am na ay yokk yu ci am yoo xam ne daari bi taxawee nag ay maanaam innovation gis nañ ne bi rajab bi teroog léegi lañ saxaafiya bi ànd ak daayira bi lañ saxaafiya bi nga xam ne dafa aju ci daayira bi ay ndaw yu sawar yoo xam ne macha allah ay sëriñ si Amadou Fadal yoo xam ne ay ndaw lañu jàngi am am xam lañ war a xam mel lañ war a mel jël seen yitte jëpp ni ko uh, suñu sang bu baax bi doon defee léegi di fas yéene liggéeyal seen maam ci xam-xam ñu toog xalaat ci njiital sëñ maam morom sëñ sëñ Modou moo jiite lañu saxaafiya bi. ñu toog xalaat ne nañu fexe ba ren moom ñu organiser ay jataay xam-xam yoo xam ne dañu koy tuddee ay rajabiyaat wala jaamiat rajab nu nu mu leen soobee ñu ñu ñu def ci ay jataay yu am solo yoo xam ne fexe nañ ba yaatal ko ci góor ñi ak ci jigéen ñi ñu ñu ñu ñu ñu toxal ko yóbbu ko ci kër yi ñi nga xam ne dañoo bokk Cheikh Amadou Fadal ñu wane fa liggéeyu Sëriñ Fàllu ci xam-xam waaye wane fa itam loo xam ne defe naa ne ñu baree bari biñ ko suivre gis nañu am na njariñ loolu itam bokk na ci yi nga xam ne daayira bi mu ngi koy taxawee euh, mu bokk ci ci li may mujjee ci loolu mooy ren ci biir liggéeyu xam-xam boobu ak tasaare njàngam Cheikh Amadou Fadil boobu euh, génne nañu benn majal la majalatul ahfad yaakaar naa sax bokk yi ñu ngi ko nu léegi boo xam ne moom itam lañu saxaafe bi moo ko liggéey ñu génne euh, lim bu njëkk bi ren lañ ko def ñu tënk ci dund Cheikh Amadou Fadil ni ko sëñ Abdou Khadir doon doon doon wane léegi ci maanaam documentaire bi incha allah ngoog euh, ni ko sëñ bi doon wane léegi ci documentaire bi nga xam ne lépp loo war a xam ci dund Cheikh am ak aw askanam am njàngam di gëm ak Sëriñ Tuubaa di gëm ak waa kër Sëriñ Tuubaa yi lépp ak yeneen ak yeneen bi nga barkeeloo ko fas yéene nag mu yaatu ndax comme comme ni ñu ci commencement ci téere bi maanaam ajalla bi li lu luy a tàmbali la soxla nañ ci xam-xam yëpp ak gëstukat ak ak gëstukat ak jàngkat yi ngir lépp loo xam ne lu ñu ci war a yokk la ñu yokk ko ci ngir liggéey bi gën a am solo sëñ bi mu ngi may fàttali léegi sëñ jirin ci taxawaay yi nga xam ne def nañu ko ren euh, ci euh, ak yokk loo xam ne ak yokk la mooy liggéey nañu bind nañu kaamilu alquran boo xam ne mën nañu wax ne ñoom lenn ci sër yi rek ñoo ko bind ngir def ko seen addi maam waaye def ko addi Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne wax nañu ko léegi bi xidmatil kitaabi wal xadiis yasbutu laa bi dahabil mawruusi la waxoon léegi rek bi ñuy tàmbali jitaay bi gis ngeen fi kuréelu xasiida ubbi jotaay bi ci xasaayu Cheikh al Xadim xasida yu neex yu yéeme ñooñu ko doon jàng ñoom ñëpp du ma wax ñu ëpp ñëpp ay sëriñ Cheikh Amadou Fadal lañ kon loolu itam li ñu tuddee ko Cheikh Cheikh Massamba Cheikh ci war a wax bari na lool suñu bokk yu baax yi ñu gën a xam foofu ñu ngi fi danañ danañ ci ñëw suñu kilifa yi waaye man dafa am ma ci seetlu bi may xool léegi di def maanaam Euh, yenn ci anam anami niroo yi Cheikh Amadou Fat niroo Cheikh Massamba ma gis ci ci wàllu lim lim ak ci wàllu ay ay taarix ay dat yoo xam ne day mel na ñoom am nañu daal lu ñu munaasaba lu ñu xeetonte lu bokkul ak bokk gi si Tuubaa ak bokk gi Pastef ak doxin weeg yooyu mooy damaa xool ne euh, Cheikh Cheikh Amadou Fadal mi ngi gën a ñaar fukki fan mi ngi gën a jamono ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab ñaar fukki ak juróom-ñaar cheikh massamba gane jamono moom ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru saxbaan muy baraxlu benn ci même rajab boobu itam ci la cheikh massamba ci la cheikh mutfaa gane jamono waaye ci la cheikh massamba wuy ji borom itam ci ci weeru rajab bi defe naa ne cheikh mamadou lamine diop mi ngi koy wax ca ca woyam wa fa cheikhuna massamba du fadlin sara ليلة خميس رجبا طاء جرى من كولخ بعام ألف ومئات جيم فصاد همزة إلى الهبات كن rajab bi ak sambaan bi ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar day mel ne dëppoo nañu ci loolu tax nag ñu am lu bare bari lu ñu niroo ci doxin ci seenu wàllu tarbiya seenu njàng ndax euh, dëgg la Cheikh Massamba seen wayjur la wayjur Cheikh Moustapha la wayjur euh, Cheikh Cheikh Madou Fadl la ak ñun bokk Cheikh al Khadim waaye ñoom ñooñu taawi Sëriñ Tuubaa yooyu day mel ne dañoo xaw a maaso maanaam doon ak maas ci ci zahir jamonoon te jàngandoo yarandoo nekkandoo ci doon Cheikh al Xadim ba ci jaayante gu siiw googu Cheikh Amadou Fadl di di di nettali ca Ceyeen te mbokk mi sëñ ji di ñëw ci léegi yooyu tax mu amoon lu lu ñu seq loo xam ne bu ñu delloo ci bayit yi Cheikhul Xadim Cheikh Cheikh Mamadou Fadl eh, def ci sëñ Massamba defe naa dana ko firndeel te li ma ci gën a yéem mooy sëñ Fallou day mel ne li ko gën a neex ci sëñ Massamba lépp neex na ko ci sëñ Massamba waaye tab gi. ak am gi mu amal njariñ nit ñi doomu aadama yi moom lu ko yéem na ndax ba mu tëbee ci marché bi rek ba mu tàmbalee rek lam lam njëkk tàmbalee rek mooy wane am njariñu sëñ Masamba ak tabuk sëñ Masamba Masamba kaana mufidal mustafidi wa man jal mustaxiisi ida man naasu qad taxatu waaw Masamba daal boo ko xamul ki ma lay bëgg xamal daal mooy ki nga xam ne day day jariñ ku jóg di wut si njariñ ci moom ku mas a jóg di di wut njariñ ci moom rek boo ñëwee mu jariñ la ku mas a am lu la jaaxal ba nga tiit sa bopp soxla ku la xet li demal ci sëñ Masamba soo àggee ci moom rek mooy muccuwaayu ku soxla kooku xeet li na bu nit ñi demee ba soxla maanaam lu ñu am ndax bekkoor bu leen sonal defe naa ne loolu topp na ko di wax yu bare bare waaye mu mu mu tagg ko ci loo xam ne ku tagg sëñ Masamba rek faaw nga tudd loolu mooy taxawaay bi mu amoon ci digganteem ak Cheikhul Khadim ci xidma bu rëy bi sëñ Tuubaa doon liggéey sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu mbind muy xasaayid yi ci bind gi ci maas gi ci saraa gi ci ci toxal gi waye ci yëkkati gi njàng mi ak kurel yi yooyu yëpp loolu Cheikh Amadou Fadal jooy na ci seigne Masamba dem na bay wax ne man li ahadisi hada cheikhi yahfadha wala yajmacuha xifdan saxixan wala tulfiihi yaxtabitu fan la ñuy jëlee ci koo xam ne day dajale ak a boole li Sëriñ Tuubaa bind ak li Sëriñ Tuubaa di waxtaane te mu naqaree digg lool léeg-léeg waaye yàlla baaxee ku mel ne sëñ Masamba bu mën a dégg waxi sëñ Touba ba sëñ Touba du woo di ko woo léeg-léeg di ko dee mu de ko saraal taalibe yi ñu si mën a jariñu mu ne kooku bi ñu ko gisatul ñu ngi koy jooy ana fan la ñuy jëlee ci ku mel noonu nga xam ne da koy dajale mu wér wala tul fii yaxtabit moom du dajjant li muy wax da koy leer te du yokk ci waxi sëriñ Touba aw xara du ci wàññi aw araf loolu ku tagg sëñ Masamba rek tagg ko ci kon Cheikh Masamba daal. mooy royukaay la sët yi dafa wax nañ ne dañoo dañ koo tudd bis bi ngir xam lim seqo seqoon Cheikh Amadou Fadal waaye ngir mu nekk royukaay itam nag ci solution bi bokk doon wax léegi sëñ Massamba doy na solution ci euh, bépp jafe-jafe boo xam ne yoonu murid tey mi ngi koy mi ngi koy mi ngi jaamaarloo moom ci ragal yàlla ci liggéeyal sëñ Tuubaa ci amal njariñ doomu aadama yi ni ko Cheikh Ibrahima Diouf Massar waxee wax ne li Cheikh Sidiya Baba waxoon ki Cheikhul Khadim ne amul benn sikk sëñ Tuubaa bu amee ayib benn ayib lay doon wala ñaari ayib mooy euh, jaamu yàlla ak jariñ mbindéef fii mu ne sëñ Masamba itam mën nañu wax loolu ci moom laa ayba fiihi siwa taqwa ilaahi wa ix daamil xadiimi bila may bila maylin wala saami nee na Cheikh Masamba daal ayibam du dara du lul ragal yàlla ak liggéeyal sëñ te mosu cee yuqat mosu cee tayal mu ne foo ko masaan fekkit jataayam ak ay waxtoom amut woon benn temps bu mu daan neenal tudd yàlla ak sant yàlla mooy ay waxam mooy ay jëfam mooy ay melom dikrul muhaymini fil awqaati daydanuhu wa shukru aadatuhu fil fi'li wal kalimi mu ne ku mel nii nag dund ci jamono ji mu dund sañ ñoo wax ne bu daje bu bu daje wutoon ak cheikhul xadim bu dul woon ak cheikhul xadim ñu ne sëñ Masamba mooy borom jamono mooy mooy imaami jamonoom lawla al xadimu imaamul asri qudwatuna la kaana afdala ahli al asri kullihimi loolu nag doone sëkk aw tagg kon daal ci tënk rek bëggumaa guddal euh, sëdi yi ñu ngi delluwaat di yeesal bu baax seenu cant ak seen ngërëm di leen dalal jàmm di di di di di leen tatagal di am mbégte bu baax ak xol yu sedd lool ci waay bi ak ci jëf ji ak ci defin wi yal na yàlla fay leen yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla yokk leen yal nañ ko fekk ay ati at te ànd ak mucc ak jëriñu ak dolliku ñu ngi jégalu bu baax ci guddal gi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu